on en est arrivé là par l'absence de prise de responsabilité pour man bokk de la ligue de football professionnel la fédération gis nga bu kenn yàqee nga dal ci kawam dóor bu baax ëllëg keneen du def même chose daaw ba léegi ñoo ngi nekk ci acte de violence dans le football professionnel ñu ngi gis ay club di def ay acte mhm. di tas match di agresser seeni adversaire fii club yi ils ont fait des efforts les clubs sénégalais se déplacer à Ndiaga Ndiaye et mais sur les trois quatre dernières années regarde le nombre de clubs qui ont acquis des bus de qualité climatisés bus yu mag ay Jaraaf yi ay Teungueth FC ay Casa Sport ak yeneen ak yeneen ah je donne juste exemple exemples ku ci nekk jéem a améliorer cadre bi ngay def ces jours au moins sur le plan transport jóge seen siège wala déplacé wu de ville en ville pour dem football yi boo demee stade gare sa bis bu jar plus de cent millions benn waaye jóge fa la jël xeeram toj pare brise dem yoonam. après nga war a dépenser deux cent ou trois cent mille en de réparation et on ne sanctionne pas parce que les sanctions ne sont pas à la hauteur des actes nit ñëw na stade football indiwu ko fa tas match ko fa indi Europe qu'est-ce qu'on fait on sanctionne celui qui a posé l'acte et on sanctionne le club il y a des pays on même on retire des points pour des actes violents mais au Sénégal da ngay def ay parce que le le malheur du football sénégalais atteindre na niveau mais nos dirigeants sont toujours dans le système du copinage dans la football ils sont toujours dans le système du copinage quand il y puissant qui est fédération qui participe au développement du football malgré tout parce que tu investis tes moyens dans ton club bu sa club defee njaaxum sax dañuy ñëw naan non on essaie de gérer ak yooyu géejawaay démb la ñu jël décision ne le stade xam nga contradiction mënul weesu ne fédération bi saison bi di démarrer ils le stade Ibrahima Boye ñoom mën nañ fa football hier il nous un, extrait de de de décision du comité d'urgence de la fédération de football qui dit que le stade Ibrahima Boye ne répond pas aux de sécurité mais le stade n'a jamais répondu aux normes de sécurité c'est maintenant qu'on s'en rend compte stade bi dafa ndaw mënatuñu fa jouer match yi mag lool la la ñuy wax léegi depuis le début de la saison on joue là-bas elle a y a yow mooy trois cas faits avérés d'actes de violence dem taxaw ci biti sànni xeer ci biir stade club yi bëgg a seen terrain war a mën réunir conditions yi parce que match bi mujj jaraaf kii géejawaay jaraaf fédération moo ko organisé ils nous ont dit qu'ils ont mis deux cent cinquante policiers match ba àggul y a problème tu peux pas deux cent cinquante éléments de police pour encadrer un match dans un stade euh, aussi petit que ñu joué ba cent vingtième minute ay supporters parce que à l'heure en réalité d'ailleurs c'est pas les supporters qui ont arrêté le match en premier c'est les joueurs situe pas les responsabilités par rapport ak diw wala diw moo def mais constat laay def les faits c'est que les joueurs Guédiawaye on dit kenn du fi dóor penalty bi parce que amul penalty <laughs> c'est à eux de décider s'il y ah, si l'arbitre a fait une erreur siffler bu ñu jàpp ne ñoom penalty wala carton rouge la mais les erreurs d'arbitrage existent dans le nañ ci dans toutes les compétitions du monde ñu on a été victime d'erreurs d'arbitrage même l'équipe nationale du Sénégal pourtant ça n'empêche pas qu'on va au bout on joue les matchs ku gagner gagner parce qu'il faut rester l'esprit fair play et sportivité or on a quitté ce terrain Sénégal dañ toll foo xam ne am na équipe yoo dañ naan seen terrain kenn du leen fa gagner boo ma neeree gagner ma tas match bi parce que esprit nawetaan lañ nekkee ba léegi même nawetaan ils ont réussi à régler en partie le problème de violence football professionnel moo ko dese actuellement au on ne peut pas des matchs en direct à la télévision nga gis gars yi jékki-jékki on joue la cinquantième minute benn waaye jóge fa la dugg commencé dugg ci terrain bokk ci indi xeex match ba tas. après ñu bëgg a def mais munuñu ñu contrôler ay mouvement de foule am na fu muy toll. Ah, ah, sécurité mënatu ci dara. Mhm. parce que bu ñu gérer sécurité biir stade bi. stade boobu nu mu configuré nga dem ci biti groupe vingt wala trente booy nekk ci biti yor seen xeer di jollale ci biir stade bi. finalement sécurité bi lu mu ci mën. dañoo wa y' a des matchs yoo xam ne y' a terrain terrains ils ne sont pas adaptés à ce type de match parce que avant match ba. Mm-hmm. ñëpp dégg nañu fi ñu naan ñëpp dégg nañ supporteru géejawaay yi ak yenn responsable yi ci football bi naan match bi xaju fa du fa demee du àgg. Mm. Eh, eh, donc ça veut dire que y' a même à la limite c' prémédité de dire que du àgg. du àgg match ba àggul donc y' a des